sant kilifa yi itam mënuñu cee ñàkk sant nag suñu kilifa yi bopp yoo xam ne dañu noo taxawu lool mën nañoo wax ne su liggéey bi àggee bitim réew wala mu tasaaroo ci bitim réew nii mu fa demee yàlla def na seen taxawaay foofu nag ka jiitu mooy Serigne Mame Mor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ndax moo njëkk wax ne liggéey bi da di tànn ndaw boole ko ak man su may dem Europe ma ànd ak moom wër Europe gépp espère fa liggéey bi samp ko fa ba ñëpp xam ñu boole ko ak sëñ Abdou Lahad mi boobaak léegi mën na fukki at ak ñaar mu xam la liggéey bi ci Europe gépp ba tey jii suñu bokkee di daje fii tey jii daje bu rafet bii yaakaar naa ca loolee la bàyyi ko kon sëñ Mame Mor ñu koy sant di ko gërëm te ñaan moom it jéego yi muy mottali ci jéego yi Cheikh Mouhamadou Mourtada ak ngërëm lim ci sàkku ak liggéey bi mu ci liggéeyal Serigne Touba lépp suñu borom defal ko ci lu kaw a njortam ak yéen ñi nga xam ne moog yéen yéen a ko ànd naka noonu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadil fu mu dem ci àdduna bi rek dana fa taxawal soññee fa taxawal fa ay jëwriñ fexe ba dara jóge fa ñëw ci liggéeyu Serigne Touba bi du ci tàyyi du ci sonn du ci bàyyi waxtu wu nekk mi ngi ciy gën a góorgóorlu ñooñu suñu leen tuddee danañ yóbbaale mboolem seen mbokk moo xam ni mi ngi ànd ak ñoom ci liggéey bu mel noonu di ko taxawee ci bitim réew. ci biir kàddu yi nag dégg nañ ci ay kàddu yu am solo yoo xam ne dawaloon na yaram lool bokk na ci kàddu yi nga xam ne mbokk mi nekk éloge euh, yi wax na ko ci néew buñ néew foofa waaye Pastef bu ñu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa ma koy fàttali rek wax naa ko léegi ne ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne ab murit nekk fi barab di fa benn ak di fa junni ñoo war a yem ci moom Pastef rek moo ngi am solo bu Pastefoo wa xiila rubba rajulin ka alfin ورب ألف كلمة كلمة كأف بارينا بن نيت بوخني ويت ني جوني نيت واي بارينا جوني نيت يوخني ويت ووت سخ لومات گان لومات گان فخه با نك كين ني نك نين ويت جوني موي لي ام سولو تا نيوم لول لا نديف كون جيرك جيف واي لي ني وخون ليغي رك تي كادو غو nga xamne jeli won nañ ko ci serigne sidi mom lañ leen di wax serigne touba da do liggéel ba samay morom raw mom nopp mësu koo dégg te ma si koo gis kon na ngeen xam ne fa ngeen nekk wéet fa waaye di fàttali ko liggéey bi ngeen di liggéey Serigne Touba Serigne Touba nekkoon na ci barab gën leen faa wéet fuuf gën leen faa tumuranke fuuf gën leen faa sonn fuuf te teewul bi fàttali ko jëwriñam ji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu sa am benn jamono joo xam ne la ko war ci diggante ak moom lépp du ko ko jox ba mu mat sëkk kon nag bu ngeen doonee ay taalibe gisee ne fa juróom yi képp ngeen fa waaye war ngeen fexe ba di am lu fay bàyyikoo di ñëw ci liggéey Serigne Touba bi ba benn événement du am te seen addee ñëw loolu day wone wane Pastef bu ngeen am ci Serigne Touba damay koy joxaat itam mu nekk ab soññi ci kilifa yi doon soññee ci seen i jawriñ loolu ab soññi la boo xam ne jawriñ yi nga xam ngeen di wax nii war nañoo jot ci juróomi nit yi nga xam ne ñoom ñu néew lañ ci barab bañ nekk waaye duñ fàtte mukk liggéey Serigne Touba bi duñ ci yi te duñ ko wóote itam li ci des nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu bari jàmbat nañ ko bi jafe-jafe yi metti na lool ci àdduna bi du rek du rek ci Guinée ak ci Mali waaye ci àdduna bépp la waaye Sëñ nag waxoon na ni wali siwaaya yantahi dayru zaman moom jafe-jafe jamono ak metti du àdduna wan na ko ginnaaw di dem te du ko jublu du jublu ko kam Sëñ Abdou Lahad dafa waxoon fii ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi nangul nañ Serigne Touba te dootuñu ko gàntu kon ñi seen xol nangul tubaab Touba ñu mën a nekk lu jamono xat xat xat xat xat dañ ciy génn ñoom ku ci mënta génn rek xoolaatal sa digganteeg Serigne Touba waaye ku def ku taxaw sa digganteeg Serigne Touba sellal sa pas-pas ak sa yéene yow dañ ciy génn jafe-jafe yi metti na lool ci réew yooyu ak niñ ko waxee waaye ñoo ngi nii tey jii màggal si nañ te amu kenn koo xam ne ba nga ñëwee loola war si kër defoo kon mënoo say morom ëppoo leen lenn waaye sa pas-pas di sëñ Tuubaa moo la may loolu pas-pas boobu nag fii mu yéen a ngi ànd ak moom di am lii di am lu ko gën kon nag jërë ngeen jëf maîtresse mooy añi ajuma yi añi ajuma yi dañ koo tuddee añi ajuma waaye léegi tuddatul añi ajuma añi jumaa war a tudd ndax yëmatul ci ajuma yi ñaata yoon ci at mi la sëriñ bi woote ci jumaa ji ay njàng ak ñaata yoon la woote ajjumay Tuubaa yooyu yëpp bu ci ne du ñu yem sax ci génne lu defar benn bisu ajjuma yi ñu daan def waaye dañuy boole ay ajjuma yéewee ne la ko bis yooyu ndax bis yooyu noonu lay toll muy bisi xasida yi di bisi muy woote njàng alxuraan di bisi ñu tudde woon ajjumay Tuubaa yooyu yëpp bu ci ne seen aji ajjuma yii ñu tudde woon aji ajjuma même bu dul ajjuma yi dugg na ci biir liggéey boobee lool nag da leen di yóbbee saxaar gi ku taxaw war a dem saxaar gu taxaw war a dem rek dana leen yóbbaaleel dara ndax ci entretien yi ñu doon def ci waajtaayu koor yi seen ñaq dem na ci seen entretien yi ñu doon def ci waajtaayu màggal seen i ñaq dem na ci bisi xaside yooyu seen i ñaq dem na ci ajjumay Tuubaa yooyu seen ñaq dem na ci te la leen ko may mooy farlu buñ farlu ci yemuñ rek ci ne at mi nangami àjjuma la kon nañ ca nañ nañ ko dajale yem buñ ko defoon xay na bés yooyu ko mën a def mbaa buñ ko defee mu mànki waaye nag seen góorgóorlu ak seen itte ak xamal ne seen xam ne Sëñ Tuubaa loo koy wutal doo ko limité loolu moo tax liggéey bii mën a demee ni mu demee kon nag jërë ngeen jëf nii rek la yoon waa ngi noonu waxoon nañ fi nag ay yitte yu ñoo itte woo woon daaw itu yang mau fi nekk bare ñu jàpp it ne waxtooma jotagul pas-pas taalibe yi jéggi na ko seen ban ban it jéggi waxtu rek lay xaar waxtu yi nag ñu ngi ñaan suñu borom mu def muy rek lépp sotti nañ ab ambulance médicalisée wax nañu Serigne Diop wax na pas-pas biñ ci amoon ak yéene jiñ ci amoon xëy na bëggoon sax mooy mu ñëw lu jiitu màggal waaye ñëw lu jiitu màggal ak ñëw ginnaaw màggal ñoo yem ndax lépp li fi def moom mi ngi fi te du ñëw te waxtu wu ñëwee am njëriñ kon sëriñ bi seen pas-pas rëy rek ngeen amoon yéen yi mu ñëw lu jiitu màggal waaye su ñëwee ginnaaw màggal yi yeneen màggal mën na ko fay rek te bu ñëwee lam doon jariñ ci màggal gi dana ko jariñ ci màggal boobu kon nag ñu ngi leen soññ bu baax di leen gërëm bu baax waaye di sant waa Italie ci médicament yi nga xam ne fàgg woon nañ ko boo xam ne dañoo amul yéene ñoom it mu jiitu si màggal gi ba coono yu nekk toggoon nañ ko ci sëriñ Assane mais jóge na France dem Italie ànd ak euh, sëñ Ibrahima Seye ñoom ñii ngir taxawu liggéey bi bëggoon mu ñëw li jiitu màggal waaye yàlla dogalu waaye ñu ngi koy séntu nag ci fan yi lu rëy waaye li ma wax bu ñëwee ci màggal gi mënut a weesu dem ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi bu ñëwee ci ginnaaw màggal yi taalibe Sëriñ Tuubaa yaa ngi te ñoo koy jariñoo te événement it du jóg Tuubaa waxtu ne kaw yaa ngi am kon yéen di ngeen amoon ak pas-pas ba ngeen amoon yéen ak wa Angleterre pas-pas dar resort ko ci te xëy serigne touba moko beugé ni mu ñew ginnaaw magal waye waxtu bu ñewé dana am njëriñ jottal lam daan am kon jërë ngeen jëf ci taxaway yi ngeen ci am ci dajale garab yi ci sakku ko ci ku ko war a mbokk mi ko war a indi Ibrahima jeng la ñew na fi barki dem bu ànd ak ay partenaire am yoo xam ne ñoom ñëpp buñu egsee jaajuwaat nañu wax ne fas nañu yéene luñ defoon rek bañ gisagul buñ doxee ba gis teg seen bët fas nañu yéene buñ delloo lu ko raw la ñuy def waaye dootu dellu gannaaw mukk te fas nañu yéene mu sax loole nag nañ ñaan yàlla mu nang ko te mu doon lu sëñ Tuubaa nangu ndax bu ko dëggul du mën a sotti waaye su ko nangoo lépp dana sotti kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci fànn yooyu naka noonu waxoon nañu ñaari oto ndox yoo xam ne ren jii màggalu ren firndeel na yitte jooju ni mu itteel ndax wax nañ ko ci sëriñ kanamu sëriñ Basiru moom sëriñ Abdul Xaadir jamono yi màggal gi manqué nañ ndox lool ci jumaa ji manqué ndox lool te armée yi sonn lool yi nag ci ngir am ndox coono bu nekk ñu daj ko ci kilifa yi lu ne daj nañ ko ngir mën a am ndox bu ñu liggéey ci ñaari barab yooyu te yaakaar naa ne fu koy fu ke dok ndox moom ñaari barab yooyu waru cee bokk wuri ji waru cee bokk armée yi waru cee bokk kon nak nañ ne la ca la ca ci am oto bo ne day sax ci juma ji am oto bo ne day sax ci barab yi fu mu sottee demaat andiwaat ba barab yooyu moom ndox jamono te loolu ya yaakaar nañ ne yomb na lool taalibe Sëriñ Tuubaa yi moo ñu boole ko ci yitte yi nga xam ne yuy jàmp la naka noonu itam euh, ñaar ñaar ñaari baas yu mag yoo xam ne gàmmoo lañ koy soxla ak màggal waaye ak bis yooyu ma tuddoon léegi nga xam ne sëriñ bi da koy woote ci jumaa ji mooy bisi xasida yi di bisi alquran yi di ajjumay Tuubaa yooyu nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy def sax la woon waaye benn bi suñu borom def na taw tawfiq ba am nañ ko ndax ñaari yoo xam ne ngir taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci barab barab bi ci xew-xew yu mag yooyu te xam ngeen ne gàmmu gi léegi dafa dugg ci nawet bi at yi yëpp yàlla def na am na mbokkum taalibe moo xam ne xëy mi ngi koy jaayante waaye Sëriñ Tuubaa lu mën a doon rek moo ko gën a yàlloo ñëpp war na koo am te mën na koo am te jàpp nañ ne taalibe yi itam am nañ yéene mu am ko kon nag nañ ci góorgóorlu ba ñaari baas yooyu man a am boo xam ne lu mu néew néew day am benn pour góor yi am benn pour jigéen ñi te nekk lu mu néew néew néew baas yi bu mu yées baasu mille place yi nga xam ne moom la ñuy am nañu nag benn boo xam ne suñu borom defoon nañu tawfeex am bokkum taalibe moo xam ne jaayante na ko te mooy nga xam ne mooy bi bi ñuy yokkee infirmerie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji moom am na bokkum taalibe mu ko jënd moo xam ne la mu war a àndal lépp ànd na ko ànd nag palette yi ànd nag climatiseur yi ba yaakaar naa ku fa ñëw rek ba dugg ci biir bâche bi xam nga ni baas bu complète la lu mel noonu lañu yéene ci bâche màggal gàmmu góor ak bu jigéen muy yoo xam ne yu dëppook jamono yi lay doon ndax am na yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla kenn xalaatu koo jël di ko tegal Sëriñ Tuubaa ci jumaan bi jàpp nañ ne li gën ci jamono lu gën ci yi ñuy jëfandikoo ci jamono looloo lañ war a jox Sëriñ Tuubaa waaye kenn kóolu koo jox loo xam ne da génn di gis leneen lu ko gën nañu it oto mbalit boo xam ne day jël mbalit dëgg la Sonacet ñu ngi góor góorlu bu baax a baax di jël si mbalit bi di indi ay poubelle di def yëpp ñu ngi def li leen war waaye nag am na taxawaay boo xam ne war na nu ne ci jël bari bi di ko yóbbu rawat waxtu ñu ñëwul rek bu ñu amee ñaari fan yoo xam ne am nañ gàllankoor ñoom wala ñett yoo xam ne am nañ gàllankoor ba ñëwuñ rek ñu gis ne mbalit bi mu ngi tàmbalee bari loolu it nag war nañ koy bàyyi xel ba am suñu oto boobu ñu itam boo xam ne daf koy day jàpp ci liggéey boobu naka noonu itam oto vidance auto vidance waxon nañ wax nañ ko léegi amna ay jamono wa France andi won nañ fi ben auto booba yi fi mu nekk nii moom yaakaar naa comme romb sax nga tataanos waxuma dugg ci waaye comme romb sax nga tataanos egg na ko ci son waxtu wu ne ka ko yor du jog garage seigne ablay Diop ñi nga xamni ne moo euh mat na ci seere waxtu bu ne ñi ngay jëndi matoor ñi ngay jëndi wéñ lay lay dara dagrot nga jënd léeg-léeg pour lu wekk ko sànni la gis daal te waxoon naa ko léegi ay ay mbekki te gi sagar nag Sëñ Tuubaa jomb na ko jomb na it Sëñ Tuubaa lu ne la ci la ci war a kon war nañoo fexe ba amaat ci boo xam ne bu bees lay doon baa bokk du màggat euh, tolluwaay bi nga xam ne forage bu bi am na ko itam te waatu waatu la su doon ko def mat naa leeral ko euh, defaroon nañu projet boo xam ne forage boobu su fekkoon ne suñu borom dimbale woon nanu ba mu mel na mu war a mel forage bu pilote lay doon ci Touba boo xam ne kuy defar forage moom da nga ko xool ndax suñu borom boole na ko ay borom xam-xam yoo xam ne ñoo ëpp xam-xam ci réew mi ci fànn googu te liggéeyal suñu Touba rek ay si defar nañ projet boo xam ne ci teen boobu. foras bobu ben foras bu koy gën ci réew mi kon dootu am lolu mo doon suñu yéne waye nak jafé jafé bi ci walu finance bi la sax nak lu seer ndax lo xamné lepp boko bolé won 140 millions lay doon nga am bi gën ci réew mi waaye suñu borom dogalu dogalé ko nona ba danoo mujj di ko wàññi di ba mo nek lu yem ngir jappandi ci ba mën am leugal waye sun borom it dogal ñu yene won mu sotti lu jitu magal bi ba taxawaay yu nek daj nañ ko ci yu nek tam def nañ ko waye yalla dogal ko egg nañ ci nañ liggéeyal cabine technique bi rek wut ay tabal jo xam dañ koy tabax man cee tek ay reservoir ngir mu yor ndox mi di sanni muy dem waaye loolu lépp ngir amoon yéene yi mu noppi balaa màggal gi la waaye suñ borom dogal ko àgg nañ ci ne nañ indi courant bi ñu jëlee ay poto te passo ba andi ko moom tiim kër gi waaye suñu borom dogalu mu sotti ci biir xool waaye ñi nga am yaakaar nag ne ci jamono yu néew moom du néew néew danañu mën a fexe ba mu génn ndox su boobaa sax xëy na jafe-jafe bañ amoon ci armée yi ci wàllu ndox moom suñu na ko saafara lii daal mooy tolluwaay yi nga xam ne ci la ñu teg tudd nañ fi nag léegi ab lim bu ñu wax ne financé nañ ko ci diggante janvier ak 31 août muy juróom-ñetti weer ñu wax ne mi ngi toll ci 80 millions yu teg waaye loolu ngeen bàyyi xel ne mooy li doon xaalis ñu génne ko dem jëndi ko waaye bokkul nag ak li nga xam ne daf fay ñëw ci ay jumtukaay yu ñu jëfandikoo màggal gii rek dix-huit mille nangam yi ñu leen wax nii ci dépense fukki nag juróom-ñeenti nag ak ñetti giléem yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo bokkul ci xaalis boobu ñu wax benn fepp ceeb buñ sóor bokkul ci xaalis boobu ñu wax am na ndox mu ñuy naan bokkul ci xaalis boobu ñu wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ne soo ko nattoon lu mu néew néew dana dem ci fukki million koor gii ñu wax wax nañ leen léegi ba tudd nañ 18 euh, millions ci matériel dolliku na ci li ci dikkoon bokkul nag ak jumtukaay yi nga xam ne dafay ñëw ñu di ko jëfandikoo muy tudd nañu li waa Turquie andi woon muy yi sëñ Abdou Lahad limoon léegi waaye bërki biig rek bërki biig rek Serigne Mouraye Seck mi nga xam ne moo yor euh, Euh, agence de voyage Xaadimu Rasuul tey déparé ujaajam yi di déparé fii ci jumaa ji andi fi lu mat ci matériel ay jumtukaay yu rafet yu jamono yoo xam ne ay matériel wu ménage la nga xam ne ni ñu amatul sëgg ci di di di fomp ay morso waaye andi lu mat fukk yoo xam ne ay jumtukaay la yu complété yoo xam ne daa ànd ak lii ménage sew biy def saabu siwo bi def ndox mu set fi ñuy teg saabu bi ak lii wañ morso bi ami tànk nga di ko puus muy dem ak ay fëggukaay ak yeneen jumtukaay yoo xam ni xam naa ne yu seer la mënuñu koo estimer waaye ab lim bu seer la kon boo nattee ki lu gën a maandu lu gën a néew quatre-vingts millions yi ñu wax day romb cent vingt millions di wéy boo ci boolee yi nga xam ne matériel la yuy ñëw lii moom xaalis la boo xam ne ñu yor xaalis bi ñoo génnee ne lii lañ joxe dépense mu dem waaye ñu yor jumtukaay yi ñu ngi doon indi seen i jumtukaay dafa bu doon yépp waaye bu ñëwoon moom it dana mat 60 millions lu mu néew néew kon ñu xam ne fii mu toll nii ci est bu ñu doon estimer fi ñu toll lu néew néew néew néew ñu ngi ci cent 120 jàpp cent 140 millions yoo xam ne dépensé nañ ko ci juróom-ñetti weer te lii may wax nag. Euh, am na yeneen yoo xam ne bokku ci lu jëm ci section armée ya dara bokku ci moom section à la boo xam ne dañ koo dénk ak équipe bu ko yor suñ manqué xaalis daal ñoom ñu jox leen ñu mot li lañu war a fay loolu la ñuy ñoom te expliqué woon naa leen daawul defe naa daaw wala daaw jéeg na liggéey ba di dox ñaa ca topp mooy ñi nga xam ne itam mooy ñi nga xam ne dañ leen jël ñuy liggéey ci biir ñooñu am na ci ñaari façon ñoo xam ne dañ leen jël di leen fay weer ñuy liggéey ñooñu bokkuñu ci lii muy ñuy garde ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy liggéey ñooñu it bokkuñu ci ndax ñooñu it dafa amaat beneen saison boo xam ne moo yor seen wàllu économie kon lii lenn la ci liggéey bi waaye du lépp lenn la ci liggéey bi waaye du lépp waaye nag mbir mi yaatu na yaatuwaay boo xam ne euh, ay nit waxoon nañ ko fi daaw buñ seqee ab liggéey daa war di leer seen bopp ba ñu xam ko moo tax ñu di ko wax waaye waxuñu ko ngir wane ne lii la ñu def wala ñu di ko naw wala ñu di ko xeet xeeb Sëñ Tuubaa kenn du ko nawal kenn du ko xeebal waaye nag ginnaaw dañ ko séq di ko liggéeyal sëriñ bi ci suñ biir moom war nañ koy leeralante ba mu leer ci suñ bopp ba kenn ku nekk xam li ngay def ak ñi ngay woo li nga leen di woo fan la jëm ak ci lan lañ koy def lii daal moo doonoon kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a wax ci turu kilifa gii toog di sëriñ Afia xam naa luy des ci kàddu yi moo koy compléteel boppam waaye euh, lii rek mooy li nga xam ne moom la fi la seen xel suñu xel toll ñu waxe fa ak yéen waaye mënuñoo mënuñu ko mënuñoo matale kàddoom ni nga xam ne noonu la ko bëggee ñu ngi sant ñépp di gërëm ñëpp di balaw àq ñëpp séntuwaat ñëpp ñu bokk fi teew ni ngay déwén tey ñaan suñu borom ñun ñëpp ñu gën a wér ñun ñëpp ñu yokk ba kenn ku nekk luy sa yéene nga man ko te buñ fi teewee dégg déwén liñ fi defoon ren doon asaka yi lañ fi war a def déwén suñu borom man na ko dal ko suñ tubaa eh, nangu eh, gërëm ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di leen sant di leen ziyaare bu baax a baax a baax te di leen ñaanal di sàkku ci yenn ngeen dolli ñu ay ñaan maa ngi ziyaare bu baax a baax euh, suñu euh, xalifa sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ti wér ñi koy ñaanal bu baax a baax a baax di sàkku ci moom bi ñaan yi mu ñuy ñaanal ñuy wax amin rek yàlla na ñu dal di ñaanal tamit suñu jëwrin suñu afiya Bousso al ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd wante ak wér ak ñii mu xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi muy sëriñ Abdou Lahad yëpp lépp ñu ngi ci biir ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd wante ak wér di ko sàkku ci yéen yàlla nañu ko yàlla may ñu yàgg ànd liggéey bi di liggéeyal sëriñ Touba ci jumaayam ji di dolli ab soññe rek ci waa federation daayira Guinée Conakry muy federation bo xam ne Serigne Abdou Thiam Ya ko jiite dogal man mi maay vice président bi di leen soññ rek bu ya a baax bu ngeen gis film bi di leen xam ne na ma ko waxee rek liggéey Serigne Touba la bu jëm fan ci jumaa yi Serigne Touba ji ci Touba donc yaakaar ne addiya ñi ma fi jiitu sax nañ ko addiya mën na reuy lol lool lool waaye benn addiya mënul gën a rëy dërëm bi nga dugal ci jumaa yi sëriñ Tuubaa ji kon ku yàlla baaxee sëriñ bi boole la ci ñiy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci jumaayam ji war nga ne alhamdulilahi rabbil alamina te bu ma wut daaw suñu jëwrin euh, sëriñ afiye Buso al imam am na kàddu yu mu waawoon fii ne seen liggéey bii day sëriñ Tuubaa nangu na wax dëgg yàlla murit bu mu doyut loolu man xawma lan moo lay war a doy kuy liggéeyal Serigne Touba ba ab imaam nela la liggéey bii ngeen di liggéey seere naa leen na Serigne Touba nangu na ko loolu wax dëgg yàlla euh, doy dal nam xel may soññewaat rek yéen waa nun ko Guinée Conakry sens la bu rëy rëy rëy ci ñun a ah, ñuy jéem a góor góorlu ci jaayante bi di dollee góorgóorlu ci liggéey Serigne Touba ci jumaa ji ndax kat ñaari ñaari ñaari ñaari sens am nañ ko ndax Serigne tubaa tudd na jumaam ji laataa mu fi jóge waaye Serigne Touba jaar na foofee Guinée Conakry kat noon na fii de dëkk bi de samay taalibe dana fi ñëw di fi liggéey ay addi yu set wecc di ma ko indi sama dëkk bee ci Touba loolu loolu Serigne Touba bind na ko kon nag ku yàlla baaxe nga bokk ci jaayante bii sa dërëm di jóge foofe di ñëw ci jumaa yi sëriñ tubaa ji wax dëgg yàlla sam xel war na daal te dafa jar sax nga jóge fi sax dem def aventurier pour sa dërëm jóge ginnaaw Guinée Conakry yi ñëw fii ci tubaa ci ci ci ci jumaay Sëriñ Touba maa ngi sant bu baax a baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoom fi jiitu eh, wax yi toir fa kàll di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wéral de delluwaat rek di sant sëriñ Abdou Lahad yëpp yi nekk fi jiite ñu liggéey bi di leen xamal ne jiit yi ngeen ñu jiite da wax dëgg yàlla ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax a baax du ngeen sonn benn yoon du ngeen tay lépp loo xamante ni bii ñoo ngi fi jëf ngir yàlla lu ñu fi indi lu ne ngir yàlla ak yéen ak seen Pastef moo tax ndax saa bu ñu leen gisee yéen ci liggéeyub Serigne tubaab bi saa bu ñu leen déggee ñoo ngi leen di dégg ci liggéeyub Serigne Touba bi kooku ku mu jiite ab liggéeyub Serigne Touba wax dëgg yàlla war ngaa dolee góorgóorlu te loolu rek lañuy sere ci yéen loolu laa xam ci yéen loolu laa mm, gis ci yéen ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax eh, kii nga xamante bi eh, moom la àndoon na muy Serigne Mout Thiam mooy

fu naqari di egg egg na fa waaye murid yi moom euh, seen yoon nekku ci ab dëkk bu naqari Serigne Touba lañ bëgg moom lañ gëm waaw moom lañ yaakaar te toujours mi ñu koy won waaw képp ku ngeen gis mu jógee Conakry ñëw ci màggal gi rek nangeen xam ne wax dëgg yàlla ci ndimbalal yàlla ak yonente bi Serigne Touba la ñëwee waaye du dëkk mu neex moo ko fi indi waaw ñoo ngi leen di tëll tàllal suñuy loxo ngeen ñaanal dëkk boobu soxla nañu ay ñaan ay ndimal na ngeen ñu dolli ay ñaan ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla bu yàggal ñu fi lool ñu ànd liggéey bi di ko def ay ati at yu bare bare bari maa ngi yam a gàtt euh, euh, taawal sama kàddu fii di yeesalaat ak cant rek nga xam ne liggéey bi daal wax dëgg yàlla am nañ ci cant bu baax a baax a baax information bi it jàll na euh, ci Guinée Conakry am nañ ci posté bu baax a baax te mi ngi ci kanam dafa comme ni ñu koy waxee rek liggéey Sëriñ yëpp na nga koy bëggee mu doxee na noone dina am neneen nu muy doxee waaye loolu loolu loolu ci liggéey sëñ Tuubaa yëpp la ku ci sëriñ bi boolewut doo ci mën a bokk waaye day maa ngi leen di xamal ne yér waa Conakry liggéey gis ngeen ku feetaan film bii day eh, nga xam ne dërëm bi nga xam ne ñoo ngi koy dugal ñu ngi koy def bu baax a baax ci jumaay sëriñ Tuubaa bi lan la ñu ciy def mooy entretien lan lañ ciy def mooy jullit yi nga xam ne am na lu ñuy itiwoo muy ñam yi surtout jaayante bi lu jaayante yi añu jumaa yi nañ ci dollee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kaddu yi am solo lol euh matalena timit jere jërëjëf ñu leen di sant bu baax di leen gëreum te di rafetlu pas pass bi kon su ko defee dañuy jall ci kaddu yi rek dalal wa Côte d'Ivoire Serigne Touba Lo sëriñ Bara Fall Serigne Mor Faasa Serigne Seex Faye xamna Serigne Touba kan moy jël kaddu ya jël kaddu bismillah kon bu defee nga wax ci turu Côte d'Ivoire ñi ngi nuyu timit jëwrin Serigne Alhaji Makumba Caam di nuyu tamit euh, jëwriñu Adjamé sëñ Baara Fall ne nga xam ne moo fi teew ak ña fa nekk ñëpp yaa Moussa Koro ak euh, dëkk yi fa nekk yëpp la waaw. waaw sëñ Touba moom ñun ñëpp ràññee nañ ko ndax bu dul dara ni mu jàppee ci communication daayira bi ak jaayante añu jumaa jeeg yooyu yëpp ràññee nañ ci pas-pasam. kon moom ràññee nañ ko bu baax a baax kon ñu jox la nga jël kàddu rek ci turu Côte d'Ivoire ak jëwriñ ya fa nekk yëpp. bisimilah asalaamaaleykum euh, wa rahmatullah wa barakaatu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe nga xam si ñoo fi teew yëpp euh, ñoo ngi leen di nuyu. Euh, di ci jiital Serigne Touba Serigne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Al Basir yàlla nag fi yàlla saxal dàkk ba mu àggale ay naalam ak yéenam ki bëgg-bëggam yëpp te ànd ko ak mboolem jullit yi yëpp. Euh, bu loolu jàllee ñuy siyaar bu baax ki nga xam ne si mooy suñ kilifa waaye itam di jëwriñu liggéey bi muy Serigne Cheikh Afia Bousso al imam ko ñaan yàlla suñ borom àggaleel ko ay mébétam te may ko kàttan gu ànd ko wér te defal ko mboolem jullit yi waaye itam di siyaar bu baax euh, sang si nga xam ne si ni Eh, ñoom la teg liggéey bi ci seen loxo ñu ànd ci ak ñoom eh, buñ ci tuddee Serigne Abdoul Ahad Boussa maam Thierno mi nekk ci suñu wet eh, Serigne Abdoul Ahad Boussa Moutalib Serigne Abdoul Ahad Boussa maam Asta Serigne Abdoul Ahad Boussa Mokhtar ak Serigne bu sa waaye itam di siyaar bu baax ki nga xam ne mooy suñ jëruñ ci diaspora bi muy Serigne Assane Diop dañ mën a yóbbaale mboolem ñi nga xam ne si ne ñi ngi ci biir liggéey bi yëpp waaye itam di leen wax ne ñi ngi ñëw ànd ak suñuy jëwrin yoo xam ne si ni ñoom lañ bokkal nekk Côte d'Ivoire eh, ki nga xam ne si ni moo ko jiitee eh, di Serigne Bara Fall bi eh, nga xam ne moo nekk ci Touba Adjemi waaye itam mu ànd ak Serigne Mor Faasa moom itam di kenn ci jëwriñ yi nga xam ne si ñu ngi ci Touba Côte d'Ivoire ak Serigne Cheikh Thiam kii nga xam mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Fall amoon na yéene ñëw lool waaye dafa am lu ko tënk ba mënul ñëw Serigne Sadeex Kanam itam amoon na yéene ñëw waaye moom itam ka saalika waaye ñi bu ñu teewee rek mel na ne que teewaale nañ leen kon ñu ngi wax ci turu Côte gi yëpp euh, di ñëw rek di jottali ay kàddu yu yoo xam ne si ne mi ngi tukkee ci daayira Muxaddamatul Xidma waaye itam ñu ko jàllale ci sunu kàddu ñuy soññ mbooleem jëwriñu Serigne Touba yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Côte gi yëpp ndax ñoom ñooy baasub liggéey bi kon ñu ngi soññ jëwriñ yooyu ñu jàppalante ci suñu biir ñun ñëpp kenn ku nekk jàpp ne liggéey bi mooy sab liggéey kenn ku nekk tam xam ne lu ci waay def lu nekk sa bopp nga ko defal euh, te mel na ni que li nga xam ne si ne mooy baas bi itam euh, sunu nijaay Serigne Fallou Diop wax na ko sànq liggéey bi doonul loo xam ne si lu yomb la ñi nga xam ne si ñoo ci jëf seenu ñàkk Serigne Touba moo leen di tànnal boppam kon nag na kenn ku nekk na kenn ku nekk fexe. ba ñi nga xam ne si ne ñi Serigne Touba di tànn ñu bokk ci liggéey bi ñooñu ca ngay bokk loolu nag nit ki moo koy fas yéene def ko ci xelam waaye itam def ko ci xolam fas ko yéene bu ko defee suñu borom eh, jàppale ko ci loolu. ñi ngi sant nag bu baax mboolem mbokki taalibe bi nga xam ne si ñi ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp ak góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn waaye nag wala fi dañuy wax ne tàgg bu nekk am na jàppal diw. daañu sant bu baax eh, kii nga xam ne si mooy sunu tante soxna Euh, euh, Ndumbe Ndumbe Seck te yàlla dogal mu nit ñibbi si nekk cees ak kii nga xam ne si ne mooy Adja euh, Ami Ñing moom itam ak soxna Xuja Seck ñoom itam ñu doon ay jëwriñ yoo xam ne si ne yuy taxaw ci liggéey bi la ak kii nga xam ne si mooy sëriñ am dëru Thiam ak sëriñ Baba Thiam ñoom ñëpp itam ñuy jàpp ci liggéey bu bu baax dafa fekk ne nag mënuñu tudd ñëpp waaye ñooñu dañu bokk ci ay jëwriñ yoo xam ne si ni saa buñ xasee ba yëkkati suñ kàddu ñoom ñi njëkk a joxe seen i participation ci la ñu bokk loolu mooy wane ne ñoom loolu daf leen a soxal bu baax waaye nag tekkiwul ne ña ci des loolu soxalu leen comme ni ñu ko waxee rek loolu moom moo ci nekk waaye daal ñi ngi tàllal suñu loxo di ko jëmale ci jëwriñu Serigne Touba yi nga xam ne seen ñoo nekk ci Côte d'Ivoire yëpp ñu jàppale ñu ci liggéey bi te xam ne kenn ku ci nekk foo waa jàpp sa bopp nga jàppal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di bañ a guddal xanaa li nga xam ne moom lañ ci jottil rek muy Eh, kii nga xam ne mooy sunu nijaay Serigne Dame Soxna Guèye eh, mu nekk ci Touba Amérique moom itam bokk ci membre yi jaayante ñu jumaay Touba moom eh, buñ ko waxee rek yaakaar ñu bari dégg nañ aw turam rawatina ñi nga xam ne si ni ñu ngi ci daayira jaayante ak añu jumaay Touba mu amoon yéene teewe si li nga xam ne mooy jataay bi waaye ndox mi tax na ba euh, mënul ñëw euh, kon itam buñ fi teewee dañ koy teewaaleel euh, di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee ay déwéni déwén te kenn bañu wutee bi barakati alhaaji Mouhamadou Alfadal mbakki wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaw ah, jërëjëf sëñ Touba kàddu yi am na solo lool te matale kon sëñ moom it pas-pasam ak pësé fa moo tax mu agsi fa moo ngi koy siyaare bu baax a baax kon teew nañu fi eh, teewal fi waa Mali gi yëpp rawatina ba Bamako eh, ànd fee it eh, jëwri yi nga xam ne ñoo teewal ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi foofa sëriñ mam Balla liggéey mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak sëriñ bay Thiam moom yàlla def na téewuñu waaye ñi nga xam ne ñoo leen fi wutoot mën nañ leen fa mën nañ leen a wóotu muy sëriñ Abdoul Khadir Jili Mbaw mi nga xam ne moom mooy trésorier daayira ba foofa nga xam ne lépp lu ñu dajale moom moo koy saytu ba ñu ko soxlaa man cee jot euh, sëriñ euh, Thierno Fall mais bokk ci ñi nga xam ne section yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk ba mu jiite fa bu am solo boo xam ne nii euh, at mu nekk rek muy koor gi muy màggal gi dañ ciy am taxawaay yu am am solo ànd ceeg sëriñ Pape Sow ñoom ak ña fa nekk ñëpp ñu ciy jëf ñu ciy jëf jëf ju am solo ak taxawaay yu am am solo ak sëriñ Fallou Thiam mi nga xam ne moom it ci secrétaire daayira bi la bokk nga xam ne ñii bind ak a saytu ca ñooñu la bokk ak man mii jël kàddu gi nga xam ne maay coordonné daayira bi foofu ca diwaanu Mali kon ñoo fi teew ak Serigne Pape Diop mi nga xam ne moo fi jóge léegi nga xam ne moom mooy trésorier daayira Matlabul Fawzayni ba nga xam ne mooy daayira Serigne Touba ba daanaka moom teewaayam sax yóbbaale na ñëpp ndax bu teewee rek day mel ne mboolem talibi Serigne Touba yi ci dëkk bi yëpp teew nañ kon loolu sedd na suñu xol lool kon teew nañ fi eh, di sant yàlla bu baax ci jataay wi Eh, di sant bu baax ci kàddu yi ñu fi déggee muy kàddu yoo xam ne nii eh, kàddu yi takkaat laxasaay la eh, kàddu yi yokkaat pëseef la ci rapport yi nga xam ne sëñ Abdou Lahad jotal na ko muy loo xam ne ni kenn ku nekk boo ko déggee danga xam ne boo delloo war ngaa gën a nàmmaat saw doxin bu baax a baax te xam ne lu bare bari des na ni ma koy faral di waxee nag jumaa ji moom kenn du ko yalwaanal maanaam li ci war a dem ak mboolem liggéey sëñ Tuubaa yëpp rek lañ ci war a def murid di jaayanteeg sëñ Tuubaa ñoo ko ñoo ko war a def ndax ñoom ñoo jaayante ak borom Touba ci liggéeyal ko kon lépp loo xam bëgg-bëggu sëriñ bi la loola dañ caa war a taxaw bu baax a baax sëriñ bi nag liggéeyal ko moom tënkuwul ci jamono ju neex ak ju naqari wala wërsëgu yaatu gu yaatuwul wala yite yu e, sotteeg yu sottiwul moom nu mën a mel rek ni jaamu yàlla doone lu gàlle ci jullit bi liggéeyal sëriñ Touba noon la gàlle ci murit bi mu war koo mu war mu war koo def kon sant nañ bu baax a baax ci teewaay bi pas-pas yi ak passif bi bu baax baax ci liggéey bi nga xamne moy mooy liggéey jumaa ji damay faral yo xamne serigne bi kat da ñaan ay ñaan yo xamne ni yàlla defal nako ba defal nako ko ba nopi xamne lim wax ne ya umuni ridwanu min kulli wijhatin wali wali ghida yumna dhikri wal qat wal khalam sa borom yàlla kat daf ma defal ay ngërëm yo xamne day bayiko fu nek te mi ngi ma ko ci sama mbind mi nga xamne mom lay jotal ci sallallahu alaihi wasallam sallam yoyu nak nag jumaa ji da ca bokk ak yenen ak yenen da kenn ku ne xam ne ne ba mu nekkee ca Mayomba eh, di fu mu nekk rek di fa jaamu suñu borom def jàkka di fa jaamu suñu borom eh, ña ko fa yóbbu woon bokk na ca lañ ko doon xatal mooy bërëb boobee bu mu fa bu mu fa bu mu fa bu mu fa am. li sëñ Moussa Ka wax ne eh, fekkoon na fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penk fa penku quartier ga mu jublu Makka bu quartier yi liit Bamba daal di noddu ñuy maaj mu kàbbar noonu faf ko gedd nga xam ne ba muy wéy ba wéy ba ba ba ba ba ba ko salaay salaam fee feeñoo ci xamal ko ne danga nga tabax yaari jumaa ci réew ma te lee nga dellu yeesal géew ma da nga tabax jumaa ju rëy fa Jurbel te kenn du ko buddi kenn du julli nërmal da nga tabax jumaa ju rëy fa tuuba te lee nga dellu Daaru Salaam ak Touba. wajal binaa binaa binaa nuurin la daam waxoon ba mu laata dem buxur yi mooy ju mooy jumaay njaareen waaye wax fir li man banaw binaa wax fir li man amaruhum bihi jami mooy jumaay Touba wali jami man aanuhum ala binaa alladi fadilika ixtala mooy eh, li ci gën a neexal sa mooy sëñ bi da cay def njëggalu yàlla am jumaa ji boo ciy liggéey mbaa ngay jàppale ñi ciy liggéey ak noo ci mën a jàppee da am njëggalu suñ borom te loolu jàmm boo gis muy dox rek lool looloo ko fi baax ndax ñëpp ko yittewoo te it yitte yeeg ak yeneen yu mën a doon yëpp bu istixfaar wéeree loolu suñ borom jàppandal ko fa qul fa bi istaghfir rabbikum innahu kaana xafaaran yursil sama aleykum midraaran ba mu ba mu yegg loolu istigfaar koy maye istigfaar boobu nag sëñ bi defal nañu ko ci sonn ci jumaa ji kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te góorgóorluwaat ci bu bu bu bu bu bu baax a baax te xam ne liggéey la boo xam ne nii eh, maanaam waras na ko digg bu baax lii nag am na solo ndax jàllale nañ ko ci groupe yëpp kilifa yi mën koo dégg ñu ko dégguloon mën koo dégg ndax am ne ñoo xam ba léegi daa mel ne message bi daa des waaye niñ koy waxee li sëñ Muntaxa di wax ne sëñ bay tànnal boppam ñu ñu liggéey loolu moom lu lu lu wér a wér la waaye nag ñiy wax moom waruñoo noppee wax ñi leeralal waruñoo noppee leeral ndax comme leer ci sa bopp rek da nga xam ne amul benn am na ko wax léegi ci biir wax ji dama koy faral wax fële ca Mali man leen ginnaaw bu alxuraan xasida wéer wéyee gisuma lu gën a kawee liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji loolu moom gis-gis la moom ah ginnaaw bu alxuraan ak xasida wéer wéyee gisuma lu gën a kawee liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji ndax daa bokk ci ndam yi nga xam ne ak tawfiix yi nga xam suñu borom daf ko daf ko ko may ñu ña jiitu woon ay kilifa def ca la nga xam ne daanaka jamono ji kenn du def lu nu toll ndax li alxuraan di wax si ñëpp laat ne afa man aussi sa bun yaano ala taqa ala ala ala taqwa ñi nga xam ne jumaa joom nañ koo taxaw taxawal ci ragal yàlla bëri na lool ci àddina bi waaye jumaay Tuubaa de am na ci taxawaay boo xam ne nii ci moom rek lañ ko les ko mas a gisee moom lañ mas a gisee xàll aw yoon def ci ay alal yu bëree bëri ngir ngir bëgg a samp am néegu yàlla loolu ci ci jumaay Tuubaa yëg lañ ko lañ lañ ko lañ ko gisee tey bërëb la boo xam ne day dajale xoli jullit yi maanaam murit boo gis tey jii muy dox boo ne ko woon yëlbal sa loxo ci jumaa ji dañ jox la àdduna ak li ci biiram day làng te bu dee leneen ci Tuubaa bu ko neexee mën na caa yëlbal loo xam te du ko wàññi dara waaye koo ne woon yëlbal sa loxo ci jumaa ji danaan la xalaatuma ko bañ nañ ko ba sax ba ci ak ku agsi ci dëkk bi li mu jëkk a def mooy wutali jumaa ja te liggéey la boo xam ne nii lam laaj ña ña ña ña amee woon coono bu coono yu njëkk ya matal nañu ko mooy tax fexe nañ ba tabax wi taxaw lépp taxaw ñun nag li ñu ci li ñu ci amee mooy fexe ba yorin wi ak maintenance bi ak li nga xam ne mooy jëmmal liggéey bi ak xurum beeg yi ci aju yëpp loolu moom lu yomb la waaw kon yaakaar naa la la metti woon te jafe as-saabixuuna as-saabixuuna ulaa'ika al na ñoom def nañ ko waaw kon ñun li ñu ci war rek mooy sàmm liggéey bi te li fekk ñu ngi dund rek suñu diggante ak suñu Tuubaa di wér mboolem lu ñu jaayante ak suñu Tuubaa ci def ko loolu waruñu cee des ginnaaw ak lu jamono naqari naqari ak lu jamono tëréeri tëréeri war nañoo góorgóorlu ci loolu bu baax a kon noo ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax di sant waa Mali yëpp di ci desuwaat ci turu Serigne maam Balla Mbacke mi nga xam ne ak soxna maam Fati ñoom la ñu xoolee Serigne Touba foofu ca dëkk ba ak Baye Tàkko Ndiaye mi nga xam ne moo jiite daayira Matlabul Fawzayni ba ak mboolem daayira Serigne Touba yëpp waaye mboolem section daayira mu xaddamatu xidma yéen a ca dëkk ba it ndax bëri na quartier yom boo boo fa demee fekk fa jëwriñ yu fa nekk xam naa dinaa leen tudd rek ngir bu ñu ko jàllee la ñu mën koo dégg xam ne war nañoo yeesalaat seen seen seen taxawaay gën a dëgëralaat seen ci liggéey bi sëñ Mortala Ndiaye ma nga fa euh, nekkal fa daayira bi bu mel ne boo demee Torokoro bugg sëñ euh, Thierno ma nga nee toog ànd fa ak sëñ Pape Sow ñoom soo demee euh, Bajala sëñ Jili Mbaw mi ak ase yi ñoom ñoo ko ñoo ko seq di ko dox ak sëñ Fallou Thiamé kon yeneen gox yi nga xam ne accès gul ci ñoom nañ dégg liggéey bi bu baax a baax te xam ne wari su ci des ginnaaw wari su ci des ginnaaw wari su des ginnaaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu jotli la ak cant it goo xam ne day dem ci jëwrin yi eh, Côte d'Ivoire muy El Hadj Macoumba Thiam ak jëwrin yi fa nekk yëpp yóbbante it ab soññee ci bokki taalibe yi ngir ñu gën ñoo jàppale ci liggéey bi. bi nga xamee ne dem nañu fa ci di di di tourner film sur les traces du Cheikh taxawaay yu rëy yoo xam ne wax dëgg yàlla taxawu ngeen ko fa ak sëñ Aliou Thiam ñoom ci lañ bëgg a def lépp ñu def ko ni ko sëriñ bëggee jàpp naa ne film bi. Euh, ñu bëri seetaan nañ ko ci waajtaayu màggal gi ci RTS muy liggéey bu rëy rëy bu am am solo kon ñu ngi sant waa Côte d'Ivoire gépp rek di leen tàllal loxo foofu ni ñu ko waxee woon ndax jàpp naa ne buñ dee wax murit gi ci diaspora ci murit yaakaar naa Côte d'Ivoire la tàmbalee ndax ba fa daayira Sëriñ Tuubaa di am ci bëriwul fu mu am ci àddina bi kon euh, jàpp nañ ne seen àddiyee war naa ñëw ci tabaxu jumaa ji walla boog Japunak naa ko loolu laa kon bunde ñu dee wooteel jumaa ji naa ko di warit war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen soñ di nuyu sëriñ ma fëri Ndiaye mi nga xam ne day réew yu bari ci yi nga xam ne jot naa dugg ci Afrique wax yàlla ci taxawaayam la kon ñu ngi koy nuyu moom it di ko sant bu baax di ko gërëm nee na bëggoon naa te waaye yaram moo xaw a sutante kon soo defee dañuy jàll rek ci Guinée Conakry sëñ sa sëñ euh, Babacar Ndiaye sëñ Ndiaye sariwu moy jël kaddu ci seen tour an nak serigne Modou cham ñu tew fi tewalel fi alaji Abdou cham mi nga xane moy mooy jëwriñu Sëriñ ji fofu ak bokk taaliba ya fa nekk yépp dëkk boobu moom sëñ jili xamna na ko xamna ni ndax seen palaat bobu mu commandé wo <laughs> mboroxe wa <laughs> kon serigne serigne babakar bisimilah <laughs> jëwriñ sëñ Aadi Touré alaaji Abdou Ndiaye waaw ah, ah, coordinateur général sëñ Baye Daam loo mu Cheikh Moustapha Karim waaw ah, ak eh, alaaji Mor eh, ak sëñ Daam Xariloo ñoom ñëpp rek am sëñ Baye Fall bismillah dafay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki muxaddamaatul xidma seen mbokkum taalibe Baye Fall Faye mooy yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëñ Assane Diop li nga xam ne moo fi teew ak sëñ fallu jami nek nekk ci sama wet ñuy jiital ci nuyo bi Serigne Mbacke Ndiaye jëwriñ fédération Espagne di nuyu le président d'honneur bay tambedou di nuyu bu baax tam ki nga xamni moy sun suñu ci Muxaddamaatu Xidma ci Espagne Serigne bay damlo mom Cheikh mohamed Moustapha Karim kaddu yi xamna du guddou ndax li tax du guddou moy togaay bi ñu tok day toogaayu kersa ak ruus moo tax kàddu yi gudd ndax bima déggé ci kaddu yi bousso dafa wax ni budget bi nga xamni mom la jumaaji soxla won wala mom la ren diaspora bi lim ci indi mi ngi toll ci vingt cinq pour cent def naa loolu nga loolu nag buñ ko déggee ak jataay bii nii mu demee ak jataay bii nii mu bakkanee te jataay bi nii mu bakkanee ak li fi ne lépp ci ay teraanga ñi fi nekk mooy ñi joxe vingt cinq pour cent ci budget jumaa ji kon ana ñi joxe soixante quinze pour cent yi mu mel na nag nit ku baax bu la dee soññ wala mu lay yett dalay teral ndax fam ne fa jaar ci jikkoom lay jëfalanteeg yow ñii nag ay gor ay gorlan ay karmilan muy mbàkke ak mbusoobe nii ñu def nii bu jàpp ni danoo def lu rëy ban ñu décoré waaye dañuy soññ lii ab soññe la ci loolu nag man maa ngi soññ jasporaa bi yëpp ndax taxawaay bi am ci muxaddamaatul xidma des na jumaa ji moom kenn mënatu cee waar ab murit ndax xam na li fi ne du jar tuddi bayit du jar jéem waar kenn ndax murit bu ne xam nga li ci jumaa ji waaye li am mooy liggéey bi dafa des li tax mu des mooy tey bu dee lu mel ne Espagne fédération Espagne

te 2 millions yi ñu wax ni moo jóge Espagne su ma juumul 2 millions wala 2 millions et quelque loolu buñ ko séddale ci 30 fédération yi nga xam moom moo composé fédération Espagne kon fédération bi ne 100 euros nga joxe te dëkk yi ni lim ci ñuy yëngu ci mu Moukhaddamatoul ma ci Espagne néew na lool. waaw xaw bu jàpp ma ko de waaye néew na lool moom loolu nag la tax mooy jëwriñ yu bari. dan lay def jëwriñu daayira nga defub seex fekk liggéey bu mel ne Muxaddamaatul ma di liggéey bi xam moom moo war a nekk ci bopp liggéey yëpp bu agsee ci yow dangay ngay xool ka gën a ñàkk bopp ca daayira ba nga dénk ko ko jaaxaan yow te buñ la laajee amoo benn responsabilité ci liggéey Sëñ Tuubaa bi te buñ wootee jataay mel nii nga mel ne man yaay wax caméra yi kii la nga jël sa image di ko partagé fu ne naan maa doon wax ci jumaa ji te dëkk ba nga nekk da ngaa jël liggéey ba dénk koo xam ne bu dee wax sax kenn du ko déglu kon liggéey dafa toll foo xam ne am na ci liggéeyoo yoo xam ni ñi nga xam ni Serigne Touba da leen jiital mbooloo topp seen ginnaaw ñuy jëwriñ Serigne Touba liggéey yooyu ñoom ñoo ko walla porté en main ñoom teel ko seen bopp waruñu ko jox kenn <coughs> loolu mooy dëgg mooy li war a ñii nag def nañ li war a def lépp sëñ Abdou Lahad mii wër na ba tàyyi sëñ Assane mii wër na ba tàyyi def nan lan war a def bu fekkee Serigne Touba la ñuy liggéeyal nag ñun duñ xool sëñ Abdou Lahad bu fi ñëw wala sëñ Assane bu fi ñëw ndax ñoom liggéeyaloo wuñu Serigne Touba la ñuy liggéeyal ngërëm Serigne Touba leen danoo bu ginnaaw bu ñu xamee li nu liggéey lu mu doon ak loolee taxawaayam ci yoon wi lu mu doon ñun ñoo waram fulla ak pas-pas def ci yitte ba mu mel ni mu war a mel. Espagne nag ay jàmbaar lañu woon lii moom du ma ko yóbbal sëñ jaay Ndiaye donte bëgg na lool bu fe bu assemblée générale amee wala réunion dana tudd kuréel yëpp ni nañ ci jàpp loolu waxin la waaye jëmmi organisation ak jëfin ak engagement dafa des Espagne nag kenn mënu ko woon ci Moukhaddamatoul Khidma waaye léegi moom raw gàddu gi moom nga Italie. dégg nga ma ma nga Angleterre la tax mooy sëñ Fallou Diop mi ak sëñ Abdou Hakim dañuy ay borom Pastef yoo xam dañuy xëcc ña nekk seen ginnaaw ñun nag Espagne ci daayira mu xaddimaatu xidma sëñ Assane Diop mii bu jàllee moom ku ci ku ci engagement yéen engagement amatu fa moom waaw loolu nag xasuma kenn waaye dañuy waxtaan xam ni jaaxaan bi ak nekk à l'aise nekk jëwrin jël yenn responsable Serigne Touba yi dénk ko ñoo xam ni da nga da ngay xol sa sa ben sa sa ndaw rek denko ko dal di jaxan defo dara te ñu lay tudde jeewrin loolu mo wara jeex loolu wara jeex loolu loolu loolu su bopam mo wara jeex jeewrin da ngay sonu tak sa ndig jitu di wane yoon rawati na liggey mel ni mu xaddamaatu xidma jumaa kenn du man man su ma man sa dama jangul bay wax ay baytu gën xamul waye jumaaji ji ci boppam kenn waratu ci war ben murit ñepp xam lu fi ne budul dara Serigne Touba min yaakaar félicité te ñu ñii ku ci wacc yalla na ci penku jumaa ji lan lay tëral kon loolu warna tax kep ku jitam bolo di jëwrin yow ya wara jital sa bop liggey bobu nga teel ko sa bop bañ ko denk kenn loolu moy deug loolu moy li waram jotaay am jataay bi nag jataayu kersa la li du teranga waye ñom dañ ñuy wan aw yoon du ñu yett nan ko xamé noonu nan ko xamé ndax ñun defuñu lu tax ñu mérito ñu wooñu fi di ñu di ñu bëggee ak di ñu berndeel da lool la dé buñ jaawale ñii dañu yedd dañoo jaar seen jikko rek waaye dañu yedd rek kon bu fi jógee nan jéem a defaraat taxawaay yi taxawaat bu baax ci liggéey bi mu yaatu rawatina Espagne kenn ku ci nekk moom na xool dëkkam réewam rek nu muy def ba baax Espagne moom booy boo ñu jàppaat ci bu baax ñu tàllaat loxo jëwri ni ñu jàppaat ci bu baax toog waxtaane ko te organiser ko mu dugg ci daayira yëpp te ñu ko war a yor yor ko maa ngi jégg lu baax salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fallou